et que euh, deux ans il nga a ni bi ko nit ñi di jangi biko di outil diplôme militaire bi ma ngi woon di outil xam donc le militaire n'écoute quelqu'un bi nga après l'avoir l'utilisé il a rejeté Maïni à ma ama gauche ak euh, Bamba le coordinateur l'homme infatigable qui nga xamante ni Bayoul dara tedul nelawul day Bayen njabootam rien que rien que pour NPS. ak suñu amical la 22 loolu mom xamna ko Bamba ban satisfaction ak ban contentement nga am ak lan mo la motiver ba yow nga bëgg dox ci loolu non ci li dajalé nit ñi. voilà alhamdullilah rabbil alamin merci beaucoup mon frère euh, sëñ Matar euh, ak wa waa way info euh di contente bu baaxa baax seen ñew fi parce que nous euh armé nañ am parce que ñun ñëpp. regretté wuñ leex ñu dugg dans intégré dans l'armée waaye comme lépp luy encore luy boolewaat contingent yi bu fekkente ni nous très bien formés euh, lépp luy boole militaires yi ak anciens militaires rek daf ñuy soxal rawati nag euh, ma yor benn post poste boo xam ne souvent je la le coordonnateur de l'UNPS euh, bi nga xam ne moo dajale contingent yi ba pare encore nekkaat sunu amical mag yow je suis le chargé des affaires sociales parce que dafa am suñu ben professeur euh, professeur Moussa Gueye toujours lolay wax euh mu marqué mo trop mu ni ce qui fait l'homme un humain c'est sa sociabilité et sa clairvoyance c'est pourquoi ñun nit sentir nañ ay dit nañ taw war nañ am bu ñuy yek toujours di def social di dajale nit ñi di bolé li tournoi bi li tax mu jog dafa am ben kilifa bu mag buy wax ni si vous ne prenez pas 20 minutes de rendez-vous avec vous chaque jour, vous faites une faute professionnelle. C'est pourquoi nous, sommes en colonie nous devons suñu école de foot nous devons suñu en plage mais un bon moment de loisir Nous am amuñu ko Nous ko jox suñu il faut imposer que nous bopp moo Moi, chaque dimanche samedi dimanche nous organiser ay tournoi ay football au moins pour nous faire plaisir nous-mêmes C'est ce que je veux nous classe yi am chance gisanteeg suñu classe yi formateurs yi ak ñenn ñi vraiment c'est un grand plaisir pour nous. c'est un grand plaisir pour se retrouver pour voir classe pour voir formateurs mais bon appel ngay def monsieur le président ngay le ministre des forces armées ngay premier ministre ngay woo wala kan woo ak lan moo manqué ak lan lañ war a def. Euh, UNPS d'abord c'est après d'avoir participé pour la réinsertion des anciens militaires mais dañuy dimbali ñi nga xam ne ñi ngi sous le parce que euh, les militaires paramilitaires incarcérés ñoom mënuñu waxal seen bopp ñi nekk si rang yi mënuñu leen waxal chaque année. dañuy bind le président de la République benn requête ñu envoyé ko au président de la ak le garde des sceaux ministre de la justice pour ñu gracier lenn si ñi nga xam ni les militaires paramilitaires incarcérés nañu dañ leen di fàtte si kaso bi bu ñuy def grâce dañuy tibb rek si civil yi li ëpp militaires yi sax duñ leen di fàtte te kenn du leen ñemee laal loolu nag nañ def appel toujours euh, si garde des sceaux ministre de justice ak le président République ñu sommes tuuti koku koku boko jëm UNPS voilà militaire voilà pour nous réintégrer euh, UNPS merci beaucoup mon frère. merci Bamba Diakhaté li nga wax dafa solo mu def appel bu appel par nos voix Info TV di wax le président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall son excellence nga baal wala booy defati grâce suñu mbokk militaires yi suñu classe yi nga xamante ni ñoo ngi ci kaso bi nga leen di ci grâce bi di leen may di leen bàyyi loolu loolu loolu rëy la de li nga wax noonu loolu dafa rëy. Euh, président Macky Sall ñëw ba requête bi dugg ñi ngi gis sa grâce di leen ci am quota kooku ñun ñoo ko bind. Wa, wax dëgg yàlla mi ngi am mais na gën a parce que boo xoolee chaque année euh, di nga xool dinañ tëj minimum quinze gendarmes euh, euh, ay policier yi waxi noppi militaires yi mënoo ko compter te yooyu chiffres yi am na fooy dem da koy am boo demee SM da ngay am affaire yi. waaye mais gars yi leen di fàtte dañ leen di fàtte voilà kon dañuy ñaanaat rek ñu dolli waaw dolli wàññi tëj bi. waaw kon ñoo ngi ñaan ñoo ngi leen di fàttali Guédiawaye Info TV. Amadou deuxième édition tournoi UNPS hein, Union nationale des patriotes du Sénégal nga un ay militaires militaires des militaires qui nga parce qu'il y a des gendarmes y a des policiers y a des pénitents le qui les donc info. TV Djelel Siwon, Fitch et ci stade Amadou Barry di rendez-vous.